Euh, municipalité yu ñu jàpp weeru janvier atum 2022 yëmbal sa kanam dafa bëgg nag yëkkati ki nga xamante ne moom mooy Bara Gaye ca chaise ba nga xamante ne nag a fala toog mouvement yëmbal ca kanam a ko jiite nag di coordonnateur communal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay jàngalekat nekk fële ca diwaanu APR Martar Thioune li mu bëgg nag mooy foofu foofee ca diwaanu yëmbal ñu tabax fa ab stade atakki nag a tabax fa ak kër goo xamante ne nag ñi di ndaw ñi dañ ciy amal ay fo laas di xamle ni Martar Thioune dellusiwaat na nag ci doxalinu ki nga xamante ne moom mooy maire libéral ba di Bara Gaye jàpp na ni Bara Gaye li mu wane mooy mënatul dara ci li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe askan bi dund fële ca diwaanu yëmbal bu ñu sukkandikoo ba tey ci ki nga xamante ne moom mooy Mactar Thion nee na nag ka nga xamante ne moom mooy maire bu yëmbal dañu ko war a daan ba tax na nag moom Mactar Thion mu ngi woo ña fa nekk ay responsable nekkee ca boobee gox bugg nag ci nguur gi ñu dàq ki nga xamante ni nag moom moo nekk ca boppu mairie ba di Bara Gaye yile kàddu mu ngi ko yëkkati gannaaw ba muy amal ab tournoi d'équipement di ko wërale nag ca quartier yi nga xamante ne ñoo nekk ca boobee diwaan bi responsable responsables nag yëkkati cent vingt mille francs jox ko nag ñi nga xamante ne nag ñoo jël raw gàddu gi a ci nag ay trophée jébbal ko yile équipe